la mu ne bunt bii ban la mu ko fii de àjjana la mu ma maa yor caabi de lii waral gaa yi di kër julli te am nga sikki sàkk Cheikh Fall la wax de waxuma mu ne am sikki sàkk yaari xel ci man ci sama njëkk julli gii ak ci bi man ma wax kenn gën ma gën Cheikh kon dafa am loo xam ne la ah. Serigne Fallou Mbacké ñëw na Daaru Fall di gane Abdou Sakor Fall